Bon, je voudrais juste revenir sur les mensonges de ce comédien guinéen, ce faux artiste. Ce qu'il a dit à l'aéroport, qu'il a été agressé par la police, il ne fait que mentir, cherche du buzz. Mais ce n'est pas comme ça qu'un artiste doit, euh, prendre comme attitude. C'est un vrai menteur, il est un comédien. Nous, les Sénégalais, lañ jubóowuñu ak suñu police mais police bi dafay lu dul dëgg dañ koy wax à chaque fois bu police yi defee bu dëgg dañ koy wax le Sénégalais est contre sa police police ñi mu amal problème mooy les Sénégalais ak cette dictature de Macky Sall amuñu benn problème beneen africain bu fi jaar ce gars ne fait que mentir il a besoin du te ce n'est pas comme ça ah bon bu ngay amee lu ngeen di comprendre Guinée yi combien de personnes Alpha Condé a tué combien de personnes Lassana Conté a tué combien de personnes Mohamed Sékou Touré a égorgé combien de personnes ce nouveau président a tué. Hein? je connais bien la Guinée. J'ai travaillé avec Cheikh Touré. Hein? Il faut arrêter de mentir. Hein? Vous vous dépersonnalisez pour un rien. Hein? Poli, xool pëli rek am problème amuñu problème ak susu yi amuñu problème ak maninka yi nous avons aucun problème avec les maninka nous avons aucun problème avec les susu les peuls qui en profit de la situation économique du Sénégal xam nañ leen depuis les faux billets yéen a ngi ci lii ma lu ma xam la ce gars doit arrêter de mentir s'il veut du buzz ah na dem entraîner yi na dem entraîner dem ba dans les répétitions ah il faut travailler dur ah pour être plus célèbre menteur. Euh, le pelguin c'est des racistes il peuvent même pas voter même pour ñu voter pour ñu voter pël la ñuy woteel je n'ai jamais vu un peul qui vote pour un sousou un peul qui vote pour un maninka seen fen yi arrêté leen ko on vous a vivre à Dakar comme nous euh, le minimum le minimum est de nous respecter waaw ah, ay bokk lañ ay juddit lañ nous sommes des panafricanistes mais votre comp comportement est nauséabond waaw ah, wax leen lu baax ci nit ñi waaw ah, maa ngi jégalu bu baax nag ñi dañuy merloo nit avec les maninka les sousou les marha la Guinée n'aurait jamais de problème Mais le, le vrai problème, le vrai problème, c'est le racisme halpolar qui s'est introduit, qui s'est introduit en Guinée. C'est ça le problème. Moi, je connais bien la Guinée, de Mamou, Dalaba, Kerewani, Kindia. J'ai fouillé la Guinée. Arrêtez vos conneries et restez tranquille. waaw ku dun pël rek bëggu leen ku dun pël amu leen ci moom soxla loolu ñëpp koo xam même Nations Unies da koy wax Nations Unies xam na ko même Nations Unies xam na ko moo tax benn support seeni habitude ak seeni comportement baaxut nit du soxor nit du iñaan nit du xalaat boppam rek boppam rek c'est pas sérieux lii ma la xam ngeen ko waaw du ngeen woteel pël dama ne sarla du ngeen woteel soninke du ngeen woteel maninka du ngeen woteel ab susu dafa jot ngeen sens seen attitude du yàgg mukk ba un président pël nekk Guinée parce que c'est votre c'est votre comportement bi ngeen nekkee la loolu rek la Nations Unies xam na ko ñëpp xam nañ ko du ngeen nit je partais très souvent au camp Boiro au temps de Sékou Touré ni mu demee xam naa ko restez tranquille les phobies que vous avez introduites en Guinée xam nañ ko nekk leen ay nit africains yi xam nañ leen amul kenn ku li di supporter bu ngeen dem élection parce que seen i jikko la nit xam changer de compé restez des intellectuels ah mieux que cette discrimination raciale bi ngeen dëkkee waaw maa ngi jégalu bu baax amul naqar parce que je suis un panafricaniste qui croit à l'Afrique mais on peut pas vivre avec ces gens là puis